ci ay photo ak ci ay vidéo maa Modou Lo je l'ai vu bu mu génnee ci oto maa ko escorté bu mu dugg ci biir ah. maa defoon ak moom shooting Siteu maa ko escorté mu dugg Siteu gis naa ko depuis États-Unis j'ai vu sa transformation bu doon làmba ji suba la Siteu il est prêt mm-hmm. Modou Lo bu doon làmb ji suba la dafa diis mm-hmm. loolu dama ko gëm man euh, euh, du nit moo mën a changer mais par contre. Okay. Ah. le sparring partenaire. waaw lu tax ma dugal foofu. parce que am na ñoom franc am na ñoom. Gorosok am na non mais actuellement parcelle derrière lui. alors que Siteu il vient de perdre un lieutenant très important en la personne de Mama Lamine. Mama boo xam ne mu génn ci écurie bi et Siteu avant il avait les Sérères au niveau de John Ward dafa doon am ay boy yu weex xat. mais dem na fi Gambie de. non même Gambie tu na pas de sparring de haut niveau mais boo demee ci îles boo bëggee am ku am le style de Modou Lô benn boy boo xamante ne day xor ci bëri day wow koŋ day dem ak yow. sur un rythme intense. foofu il faut Siteu nekk jonwaar et il faut qu'il fasse une très bonne sélection mm-hmm. les jeunes des îles ñoom ñoo xaw niroog bëri ak Modou Lo mm-hmm. xaw ma na xam nga fi may waxee mm-hmm. donc j'aimerais bien voir la sélection de Siteu pour ce combat là par rapport est-ce que loolu dig ko dig ci ci ci biir contenu bi nga xamante ni moo fay am waaw mais xam nga Siteu nag bu xasee bu dugg jonwaar foofu noonu day nekk ci beneen environnement ok mais gëm naa ni gëm naa ni aujourd'hui on a mm. une familiarité. Mm. ak une affinité boo xamante ne. Mm. Siteu eh, actuellement dafa combat bi da koo bëgg a gagner avec la manière. ok parce que Siteu est en train d'aborder ce combat différemment ni ko Ama Baldé ak ni ko Boy Niang aborder. parce que Boy Niang dafa ñëw dëggal boppam digganteem ak Balla Gaye 2 mais avec Modou Lo il a été un peu trop doux. ok Ama Baldé mais Siteu actuellement mu ngi woon Modou Lo du ma la may dara. dans la communication. il a accepté de faire ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière moom muy shooting c'était pour am pour am ay photom en tant que infographe c'est très compliqué booy bëgg a def ay montage mais surtout actuellement il montre qu'il est prêt mais léegi nag dernière ligne droite bi mooy le sparring partner de Siteu le sparring partner de Modou Lo mhm. la affaire yi amee importance moom la moo tax may laaj Omez grand Omez lan mooy vraiment la stratégie voilà donc